mbokk yi dal leen ak jàmm ci point com comme à chaque fois ñu ñëw ak yéen ci actualité ñuy wax nag ci ki nga xam ne moom Pape Ndiaye di journaliste chroniqueur politique nga ñu jot dañu ko nga commissariat central depuis démb ci minuit la ko mettre en garde à vue li ñu ko nga commissariat central di benn plainte boo xam déposé wun nañ ko contre moom pour escroquerie benn dame sax déposé posé woon ah, waaye nag liy ñuul ci mbir mi mooy ba mu demee ba foofu ah, ñu ngi ñuy wax ni ah, dañu ko daal di interroger ci loo xam ni bokkul ak dara plainte boobule li ñu ko laaj nag moom mooy ay relation yi nga xam ni am na ko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa parti Pastef leneen loo xam ne laaj nañ ko di sortie yi nga xam ni def na ko ci juge Samba Sall nekkoon fi doyen des juges génn àdduna ci bu yàggul dara ki nga xam ni nag moom mooy Pape Ndiaye lu tolloo ko sept heures de temps lañu ko fofu foofu di li nga question euh, mettre en garde à vue après minuit la mettre en garde à vue fofu nga euh, euh, commissariat central ki nga que nak moyen maître Cheikh Niass di avocat nek aussi PDG fele nga mom moy disposition manam. Les lo ci rek dina avocat ngeen ñu défendre ki nga xam ne euh, moom mooy euh, journaliste euh, bile di Pape Ndiaye loolu nag di information yoo xam ne ñi ngi ko jëlee ci suñu confrère yu Sénégal ñu ñuy wax ni ki nga xam ne moom mooy Pape Ndiaye ba léegi ñi ngi ko téye fële nga xam ni moom mooy commissariat central loolu lañ leen indiloon tey doon wax ci garde à vue ki nga xam ni moom mooy journaliste bi di Pape Ndiaye ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp seen site d'information limametti point com ngir dara bañ leen a raw di leen jox dig daje beneen yoon Cibar.